jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi nag euh, ñu am mbégte bu baax a baax dellu siwaat euh, ci seen émission euh, pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw moo nekk ci wàllu machine bi tey nag mbokk yi. Euh, dañu am euh, benn invité bu tudd Malick euh, Ndiaye Malick Ndiaye nag dafay dafa nekk responsable politique APR ci fi nga xam ne moom mooy Fatick nekk nekk expert en numérique bokk ci mouvance présidentielle waaye tamit bokk ci cadre yu APR yi Malick Ndiaye réew mi FM nga leen nuyu. waaw maa ngi lay nuyu Abdou Khadre. di la gërëm tamit ci invitation bi. di profité di nuyu sama xarit yëpp. Euh, sama àndandoo ñi may àndal ci wàllu politique euh, di euh, remercier tamit di nuyu waa Fatick. Mm. fi ma cosaanoo surtout sama waa zone waa Louga Ndem. Mm. di nuyu aussi suñu coordonnateur Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne mooy coordonné cadre APR yi. nga xam ne si laa bokk di ci yëngu. Euh, xam naa ne dina ñëw ci euh, Fatick ndax yow nee nga Fatick nga cosaano ñi turé bi fa la dëkk mais la ñuy dégg waa Fatick ñu baree bari naan euh, xam naa ne waxaguñ Fatick tampi mais bu mutu la fa lañ jëm ndax jàmbat yi tamit dañ dañ koy faral dégg foofu naa dinañ si daal di dikk mais sànq si présentation bi tamit nee naa Malick Ndiaye expert en numérique bien vrai que am nga benn casquette politique mais numérique bi tamit dafa nekk mbir moo xam ne àdduna bi ni muy doxee dafa dox jëm ci li nga xam ne moom mooy numérique moo tax fu ñu taxaw ci tuuti fan nga jàngee Malick ak euh, lan nga ñu mën a wax ci en tant que expert numérique ci ci fi ni àdduna doxee jamono ji euh, waaw man maa ngi jàngee Sénégal laa jàngee ak euh, dem mottale ko France yàgg naa fa tuuti bi ma dellu see tamit Sénégal liggéey naa fi maa ngi fi liggéey depuis presque vingt cinq trente ans lépp ci wàllu numérique bi waaw occupé naa fi nag ay fonctions yu bëri ci wàllu numérique Sénégal daanaka lépp lu fiy yëngu rek fi ñu toll na ci wàllu numérique rek bu ma ko dirigé wul tamit sama loxo dugg na ci. Mm. waaw ndax nekk naa conseil technique premier ministre pendant huit ans ci wàllu numérique wëlbatiku nekk directeur général adjoint bu RTS nekk directeur général de l' économie numérique ministère euh, nekk euh, coordonnateur grappe euh, numérique aussi ba pare mujj nekk directeur de cabinet ministre bi. léegi maa ngi ARTP ci conseil bi ñu woowe le conseil de régulation maanaam fa ñuy jëlee décision yi ci biir ARTP donc lépp li fi am ci fukki at ak juróom yépp ci wàllu numérique wax dëgg yàlla sama loxo dugg na ci lan nga ñu mën a ci numérique exactement numérique lan mooy solo si xam nga numérique fi mu nekk nii xam nga numérique évolution télécommunication bu njëkk ba la maanaam bu njëkk xam nga euh, mbirum télécommunication jokkalante yi ci ci wàllu téléphone léegi boo tud gisee ñu tuddee ko numérique maanaam dafa gën a yaatu léegi télécommunication jël téléphone woote léegi ñëpp xam nañ ne ku am téléphone boo xam ne ne xaw na nekk smartphone wala bu am euh, application yi mën nga ci def loola neex mën nga ci seetaan télévision mën nga ci woote mën nga ci faj say soxla mën nga ci lijjanti xaalis mën nga ci def lépp fay facture mën nga ci lepp xaalis sax mm-hmm. mën nga ci ci xaalis lu ne mën na ci léegi comme li benn waay doon wax rek. maanaam moyen de déplacement aussi. moyen de déplacement lépp mu ngi ci. maanaam li benn waay doon wax rek. Euh, ne euh, xam nga buñ la nee euh, yaa ngi rax yaa ngi nettoyer say bëñ xam nga doone damay jël brosse à dents def ci pat nettoyer samay bëñ. Mm-hmm. waaw numérique mooy loolu léegi maanaam lépp looy def rek booy jàng da ngay utiliser numérique booy dox booy booy transport da ngay utiliser numérique booy jënd da ngay numérique. booy jaay da ngay numérique lépp loo mën ci def tey jii numérique mu ngi ci biir maanaam jaratul ñuy wax sànq ne damay jàng tey ci jaarale ko ci numérique parce que jàng bi ñëpp xam nañ ne léegi lu ci bëri ci numérique lay jaar. Mhm. voilà donc maanaam numérique léegi dafa diffusé wu maanaam dafa dugg ci biir dund bi ba nga xam ne kenn mënatul def lenn loo xam ne tey jii euh, mën nga ko def te doo jaar ci numérique. Mhm. léegi euh, comme ni nga ko expliqué sànq euh, xam nga bu njëkk da ngaa wu. Euh, pour jàngi wala nga déplacé wu pour fay facture ndax gis nañ ne daana bëri ay agence nit ñi dem rang euh, déplacé wu léegi euh, économiquement tey ban njëriñ la ñuy amal numérique bi boo ko doon méngale tey sunu économie ndax li nga wax nii lépp tey par exemple tey bu dee tey numériser nañ lépp dootuma demati village wuti ay ay ay ay kayitu juddu wala ay maanaam extrait de naissance yu mel noonu déplacement boobu may def Euh, da ngay fay xaalis léegi numérique boo ko doon méngale lan la ñu mën a jural ci mbiru koom. waaw xam nga ci mbirum koom déjà euh, numérique li muy jur euh, maanaam productivité c'est-à-dire que li nit ñi daan def tey di ci def ñaari waxtu tey ji ak numérique bi mën nga ko ci def ci trente minutes benn ñaareel ba ni muy gaawee. ni mu gaawee ak ni mu mën a loo loo doon def benn activité ci ñaari waxtu léegi mën nga ci def ñeenti activité te léegi fa ngay toog ak sa nu ak boo amee ay outils numériques fa ngay toog di lijjanti sa xaalis xaalis bi di dugg sa biir compte nga koy gis euh, maanaam euh, ci wàllu koom-koom li mu mën a jur déjà ci wàllu télécommunication xam nga ñun Sénégal euh, suñu opérateur télécommunication numérique bi la muy indi ci budget Sénégal. Mm-hmm. bëri na trop. Mm-hmm. ñoo xam seen seen chiffre d'affaires opérateur yi tey jii boo ko doon dajale opérateur yi mët na 1000 milliards par année ëpp na ko. Mm-hmm. donc loolu rek déjà buñ ci fayee ay taxes fay ci ay impôt Sénégal loolu mën na jur lu bari ci suñu wàll économie beneen bi mooy euh, même suñu ak même suñu mbéykat yi tey jii gis nga euh, euh, li ñu mën a xam li ñu mën a utiliser numérique pour xam déjà climat bi ñëw ndax da war na taw warul taw pour mën a gérer lu ñu war a li ñu war a lu ñu war a béy am na ci ñoo xam ne tey jii fa ñu toog la ñuy toog di arroser seen ay tool ci numérique bi maanaam loolu ay xale yu sénégalais yu ndaw ñoo ko defar tey jii am na système d'arrosage boo xam ne ci bureau ngay toog wala sa kër ngay toog température bi xool climat bi xool la ngay euh, euh, euh, sa production nu mu demee nga bës ci ay bouton mu produire la mu mu mu la donc te loolu la ngay béyi tamit man nga toog fa ngay toog di ko jaay. ndax euh, euh, la ngay béy mën nga toog di ko exposé ku nekk Allemagne wala ku nekk ci beneen dëkk gis ko mën a def commande ci numérique ci numérique directement mais mais mais Malick Ndiaye euh, mais numérique ku ko wax wax aussi internet mhm. est-ce que tey yéen fan ngeen toll ci internet bi ci ci àdduna bi accès à à xam nga actuellement nii wax dëgg yàlla internet bi ni muy développé wu dëkku mel ni en tout cas Sénégal suñu niveau d'accès à internet développé na moo ci ñu gën a développé ci Afrique de l'Ouest la bokk mën naa maanaam même si même sax même sax ci biir Afrique ñun Sénégal au moins côté boobu am nañ ci niveau de développement boo xam ne wax dëgg yàlla amuñ kenn kuñ siy ñee nag waaw mais am na ci zone rurale yoo xam ne ba léegi am na ay problème mu accès à internet parce que mbir mi loolu la rek ku amul internet moom wax dëgg yàlla fi mu nekk nii am na ci situation yoo xam ne doo ci mën a bokk am na ci avantage yoo xam ne doo ko mën a am moo tax Sénégal am nañ ay stratégie yoo xam ne euh, gouvernement bi teg na ko président Macky Sall nee na internet na ko ñëpp am foo mënti nekk ci biir Sénégal te loolu opérateur yi dégg nañ ko ñu ngi koy dox am nañ ay structures yoo xam ne ñun ñu mel ni ARTP ñun lool la ñuy surveiller saa yu ñu yeewoo ñu ngi surveiller ndax opérateurs yi ñu ngi dugg ci zone rurale yi am nañ ay programmes yoo xam ne Sénégal mu ngi ko teg comme ay programme yu mel ni Puma yoo xam ne yooyu tamit Euh, euh, opérateurs yi tey jii si seen quatre g dañ leen imposer ak routier yépp ñu mën ko couvrir selon euh, ci ci un certain nombre d'années am na aussi benn programme bu tudd service universel boo xam ne opérateurs yi ñoo fay cotiser ñoom lu ñu mënul def fonds boobu mu ngi tudd fonds de développement du service universel fonds boobu dañ ciy jël pour développer ay solutions yoo xam ne nit ñi nga xam ne dañu nekk ci zone yoo xam ne opérateurs yi wuñ fa dem sax dañ ko war a financer pour que ñu mën a am accès internet d'accord jërëjëf euh, Malick euh, Ndiaye mais yéen yéen a ngi wax euh, li nga xamante ni moom mooy internet mais ñu gis ne président mag Sall bis bu set ma ngi dànkaafu askan wi ci internet bi ci réseaux sociaux yi loolu lan moo ci sa xalaat waaw xam nga président sax wax dëgg yàlla dànkaafu nit ñi ci wàllu réseaux sociaux yi xam nga problème internet li mu jur ci wàllu koom bëri na loolu waaye tamit li mu jur ci wàllu fitna dafa bëri tey jii internet Euh, terroristes yi ñoo gën a bëri ci internet di ci def naka sulul noonu moo tax ñun suñu code pénal depuis 2017 changé nañ ko dugal ci ay ay ay ay ay infraction yoo xam ne boo utiliser internet di def affaire terrorisme euh, suñu suñu code pénal da lay daan loolu yàgg na monde bi yëpp ku ci nekk yaa ngi jël sa ay matukaay pour que terrorisme yi bañ a jaar ci biir internet parce que dañoo am doole fa ñuy jaar di mobiliser ay nit yow si sa dëkk te yow doo ko mën a xam beneen bi mooy réseau sociaux yi gis nga tey jii nit ñi lañ daan defante ci biir ci biir seen biir léegi dañ ko déplacé di ko defante ci biir internet bi maanaam lépp lu bon xaste saagante tooñ lépp lu nit ñi daan def ci ci jàkkaarloo nii wala di ko yóbbante léegi dañ koy def ci biir internet bi tey jii yow Abdou Khadre ku bëgg a bind ci yow dara mën na bañ a vérifier sax xëy rek bind Abdou Khadre nangam nangam moo ma def lii moom ma def lii moom ma def lii def ay vidéo parce que léegi montage vidéo dafa yomb de xale yu ndaw boo ndaw boo jël rek mënal defal benn vidéo dindi sa kanam def ci beneen kanam dugal ko ci internet ñu ne voilà nag Abdou Khadre moo def lii nangam nangam nangam xam nga loolu tamit mënuñ ko bàyyi muy wéy parce que actuellement nii am na xale yu bëri gis nga euh, Abdou Khadre du ma la mën a gis nga xale yu bëri ci biir école yi ñu ci bëri seen jàng yàqu na am na famille yu bëri yoo xam ne tas nañ ndax jaxasoo bi nit ñi di utiliser ak ak sos bi ñuy utiliser ci biir internet bi loolu nag waaye waaye vraiment il faut ñu jóg ci dëkk yëpp a ngi ci jóg ah, ku ci nekk nag yaa ngi koy def ci na nga ko mënee. mais mais defu leen ko pour gàllankoor euh, euh, liberté askan bi. déedéet xam nga euh, principe liberté dafa am ak principe responsabilité principe liberté nag fa mu yem. mooy yow fa fa fa fa fa muy ko mooy fa sa liberté yam kenn mënul utiliser principe liberté pour mën a tooñ nit gàllankoor ko sosal ko yàq àddina loolu mënul nekk warul mën a nekk moo tax li ñuy wax encadrement encadrement réseaux sociaux yi du du forcément dagg fii parce que am na ci loo xam ne aussi techniquement kenn mënu ko parce que réseaux sociaux yi ni muy fonctionner jógewul fii ah jógewul Sénégal serveurs yi newu fi dara newu fi ñun ay utilisateur lañu. mais mais yéen au niveau de l'ARTP lan ngeen ci mën a contrôler lan ngeen ci man ak lan ngeen ci mënut. xam nga ñun nag euh, ñu bëri côté boobu dañuy xaw a euh, jox ARTP pouvoir bu mu amul ñun suñu pouvoir ARTP du dugg ci biir réseaux sociaux yi du dugg ci biir contenu bi ñun li ñuy réguler mooy télécommunication bi maanaam euh, li nekk ci biti waaye li ni ci biir ñun duñ ko mën a dugg duñ ci mën a dugg. li ne ci biir yeneen organe ñoo koy gérer waaye ñun li ñuy gérer mooy réseau bi câble yi infrastructure yeeg ak leneen yeneen yi mais li na ci biir ARTP du duggul du dugg ci liñ ci biir ci biir communication bi ARTP du dugg ci loolu. maanaam tey jii bu nit tooñee nit mënul ñëw porter plainte bu nit saagaa nit ci biir réseau. internet bi mënul ñëw ARTP parce que ARTP du gérer loolu. Mm-hmm. mais mais bu ngeen gisoon tey site internet bi def naka sudu noonu. wala page Facebook bu ñuy bind naka sudu noonu wala benn chaîne YouTube yéen waa ARTP mënu leen ci dara. mënuñu ci dara. mënu leen ko bloqué aussi. déedéet loolu du suñu liggéey. du seen liggéey. déedéet loolu lan mooy seen liggéey. xam nga ñun suñu liggéey lenn la euh, ñun dañuy surveiller marché télécommunication maanaam marché yi ngay gis nii communication ay Orange ak ay Free ak ak Expresso ñooñu dañ leen di surveiller. parce que marché loolu marché télécommunication boo xam ne dafa bëri xaalis te bëri doole lañ ci njëkk surveiller mooy est-ce que kenn ci opérateur yi du noot yeneen opérateur yi maanaam. wala def concurrence déloyale def concurrence déloyale ñun yooyu la ñuy surveiller dañuy surveiller tamit seen diggante ñoom. ak clients yi. est-ce que consommateurs yi ñoom duñ leen noot consommateurs yi ku ci am problème ak benn opérateur mën nga ñëw ci ñun. waaw mais mais Malick ñun dañoo gis ne ñun euh, opérateurs yi dañuy noot euh, di ñu sonal euh, non seulement li ñuy jaay tamit dafa cher beneen bi tamit tey par exemple tey dañ lay jaay crédit na la boo si woote app bi dañ koy dagg wala ñu jaay la internet na la boo si connecté wut dañ koy dagg loolu tamit ci ci nooteel la bokk beneen bi tamit réseau boo xamante ni tey yenn ci ci ci kii ci service yi gis nañ ne da ngay jokkoo ba mu yàgg ñu ne la Malick a ngi jokkoog nit te fekk Malick jokkoowut ak kenn Euh, problème yooyu yëpp ñun dañ koy gàll dañ koy jànkoonteel te dañu gis ne ARTP taxawaay bi mu ci waroon def dëgg-dëgg dafa am lu ci des. Euh, xam nga nag loolu tamit euh, yenn saay yenn ñenn ñi dañuy taxaw di ko wax waaye duñ ko duñ ko duñ ko bind parce que ñun tamit li ñenn ñi di bind di ñu du ñu adressé ay ay ay plainte plainte yooyu la ñu mën dañu am benn service boo xam ne benn cellule boo xam ne loolu rek lay toppatoo képp ku am lu la naqari sa par sa diggante ay opérateur mën nga bind foofu buñ ko bindee dañ koy traité wax opérateur bi bu dul dëgg mun ñu ne ko defal nii te gis nga opérateur bu ci deful lañ la wax dañ lay sanctionné ci sa chiffre d'affaires ba nga am Sénégal yépp moo tax opérateur yi ragal nañ loolu donc ku sénégalais bu ci am problème boo bindee ARTP ñaxtu bu ñu gisee ne lii warul mën a nekk bu ñu bind opérateur bi da koy def. mais est-ce que accès accessibilité bi yomb na ci ARTP comme man mu jugoon tey bëgg ñëw bind ARTP est-ce que bu ma ñëwoon tey ci seen kër googu euh, dinaa am possibilité bind am ko ma dalal am fu ma déposé euh, plainte bi tout ça. waaw waaw loolu laa lay expliqué ne la am nañ benn cellule boo xam ne loolu rek mooy liggéeyam xëy na peut-être communication yi moo des ak fësal ko ak di wane tamit seen ay résultat parce que tey jii buñ la wonoon tey jii cellule boobu la muy liggéey ci ay résultats ci ay plaintes yu mu jot. ak yi yu yu yu imposé opérateurs yi ñu def lañ war a def bu boobaa di nga xam ne euh, euh, cellule euh, cellule boobu ma ngi liggéey xëy na peut-être dañ ko fësalul nañ ko war a fësalee moo tax sénégalais yu bëri bu ñu amee yenn problème yi dañ koy dencaale wala di ko wër di ko wax xëy na peut-être ci média yeeg di ko wax feneen mais tey jii am na sax benn numéro vert boo xam ne tey jii yow boo fa wootee dañ lay jël. am loolu yëpp am na ci. Ah, waaw mais gis nañ tamit ne euh, li nga xam ne mooy euh, service télécommunication yi euh, dañuy faral di di nootante comme par exemple bu si mel ni Orange ak Orange Money ak Free. gis nañ ne tamit benn concurrence bu bu bu tar moo nekk ci seen seen diggante yéen est-ce que amu leen amu leen féete wala seenum liggéey amul par parloo. déedéet ñun suñu liggéey amul par parloo parce que ñun dañu mel ni ay juge ñun. Mm-hmm. Euh, tey jii bu problème amee ci kenn ci opérateurs yi bu ñëwee def plaintam dañuy jël suñu temps am nañ ay techniciens am nañ ay ingénieurs am nañ ay juristes am nañ ay économistes yoo xam ne ku ci nekk dangay def sa liggéey bu ñu paree dañ koy indi si ñun ñi nga xam ne ñun ñooy arbitrer parce que ARTP dafa mel ni tribunalu télécommunication du gendarmerie tribunalu télécommunication la donc bu dañuy mel ni ñuy juger gis nga tey jii. Euh, euh, am na temps orange amoon fi problème ak Free wala Free amoon fi problème ak euh, nu mu tuddati mbakk yu fay. Mhm. ci seen problème bu. mobile mobile boobu. Mhm. loolu bi bu amee ñun bu ñu jëlee décision ne ne opérateur tel da nga war a def lii boo ko defulee loi bi may na la dele boo ko defulee. dañ la sanctionné 0,3 pour cent au maximum de ce chiffre d'affaires te opérateurs yi ñëpp xam nañ loolu. léegi kan ngeen si mën a sanctionné expliqué ci benn benn benn benn scénario. xam nga euh, biñ ne euh, euh, nu mu tuddati Free ak no bu mbakk yu fay. bi mobile bi Free waaw Free mobile. kii nu mu tuddati. Mhm. Pro mobile. Pro dañ ne waroon ànd. pour ñu lancer Promobile Free indil Promobile ay jafe-jafe Promobile ñëw ci ñun Free daan nañ ko lu ma deux cent millions à peu mu war ko fay gis nga Free am na ay promotion yoo xam ne def na ko te gis nga fi mu nekk ni même opérateur yi pour ñu def seen ay promotion dañu war a tàggu ARTP am na loo xam ne tey jii buñ ko defee te tàgguwuñu ARTP dañ leen di sanctionner Sonatel sanctionné nañ ko fi lu ma 2 milliards il y a quelques années. fay na ko dafa fay bañ a fay trésor public ngay def chèque fay. du te fay bi ARTP e du ko laal de fay bi trésor public la directement. léegi bu dee euh, orange ñenn ñi dañu jàpp na yéen euh, orange ngeen di faral di teel tànk war taxas féetale genn wet. déedéet loolu mënul ne loolu xam nga lu tax mënul nekk d'abord euh, mbir mi ñun ci droit lañ koy teg. boo gisee ñun li ñuy sanctionné ci orange ak la ñuy la ñuy bindal orange boo ko doon gis di nga xam ne amul par parlo li ñu sanctionné ci orange ak li ñu ko defal mise en demeure defaluñ ko kenn ci opérateur yi orange li ma fay ci ay sanctions Sénégal fii amul benn opérateur bu ko fay. d'accord léegi jërëjëf euh, Malick Ndiaye euh, yow nga nekk ARTP nekk ex nekk expert en numérique euh, léegi fan yuy jàll lu jëm ci wàllum transfert d'argent. Euh, am na problème diggante ñi nga xam ne ñooy Wave ak euh, Orange Money problème bi nan la demee ak yéen ban liggéey ngeen ci def. waaw xam nga nag euh, dafa am dossier yoo xam ne bu nekkee en instruction si ñun maanaam bu ñu koy saytu ci ñun am na information yoo xam ne duñ ko duñ ko mën a génnee waaye li ma la mën a wax ci li am mooy problème mu Orange ak Wave ñaari façon problème moo am benn problème bi nga xam ne ñun man jël nañ ko en charge mooy problème mu Wave doon jaay ay crédit Orange mone Orange. Mhm. ay ay crédit consommation Orange. Mhm. boobu euh, am nañ problème seen diggante ba Orange ne euh, doot jaayatul permettrul Wave mu jaay ay crédit ci biir plateforme am problème boobu ñun. mettre nañ ci en demeure orange ne ko yow la ngay jaayee euh, sa filiale maanaam mooy orange mobile xam nga orange bu mag day jël crédit di ko jox di ko jox orange orange mobile orange mobile di jaayaat ci biir plateforme mm-hmm. dañ ko ne la ngay jox kooku ci prix ba nga ko koy joxee say filial loolu lañ bëgg nga joxee ko Wave parce que Orange da doon bañ jox Wave ci prix ba mooy joxe moom ay filiale am te bu boobaa comme Wave concurrent Orange Money la ñoom ñaar la ñuy jëndee même njëg bi la war a doon xam nga loolu rek déjà exemple. ci ci régulation. mais est Orange. ah foog mu respecté ko bu ko respecté wul dañ koy daan sanction xaalis bu bari nag laa la wax duñ koy daan rek ci lu muy def ci orangement Money rek dañ koy daan. ci chiffre d'affaires ba muy def globalement biir Sénégal boo xam ne mu ëpp na huit cent millions huit cent milliards ci at bu boobaa Orange na fay lu ëpp milliard teg donc côté boobu ñun réglé nañ ko ñun ARTP côté bu ñu réglé mu ñul réglé nag mooy li ñuy wooyee ay frais de transaction ak li di fay ci boutique yeeg euh, euh, booy retiré xaalis ak yooyu loolu du cëru ARTP parce que partie boobu mooy parti finance mobile maanaam Euh, parti xaalis la boo xam ne kooku régulation ministère des finances la ak BCEAO ñoom ñooy gérer loolu. d'accord jërëjëf euh, Malick Ndiaye ñu wax tuuti ci li nga xamante ni tey moom mooy centre data centre bi nga xamante ni fa la ñuy jàll euh, inauguré nañ ko fi nga xam ne moom mooy Diamniadio lan mooy njariñ li. waaw xam nga. Euh, Abdou Khadre euh, centre data center moom centre de données lañ koy wooyee ci français dafa am njëriñ ci dëkk gis nga tey jii ñun li ñuy wax ci numérique yépp ku ci nekk yaa ngi yor sa tablette ak sa ordinateur ak sa téléphone di accéder di di di manipuler di jot ay information di yónnee information waaye jàppal ne information yi ngay yónnee ak ya ngay jot yoo xamuloo sax fa mu jege xamuloo ci ban dëkk la nekk xamuloo ko koy garder xamuloo fa mu jógee loolu yëpp nag ci ay data center la nekk te daanaka information yu bëree bëree bëri bitim réew lay jóge loolu moo tax dëkk yi ku ci nekk léegi da ngay jéem a ut sa benn ay data center yoo xam ne yaa ngi koy installé sa biir dëkk comme sa yenn information yi nit ñi soxla nekk ci biir dëkk bi soxla au moins bu ñu connecté woo ci internet di ko uti information yi du traverser frontières yi ñëw ba fekk ci la biir Sénégal au moins dinañ ko mën a utiliser ñun si suñu biir fii loolu ci wàllu internet mais ci wàllu même application yi maanaam euh, application banque yi application euh, administration yeeg yooyu am na ci yoo xam ne bitim réew lay jógee donc data center bi ñu installé loolu mooy njëriñam dina per dina dina tax ku fa mën a héberger ay données. donné yooyu boo nekkee biir Sénégal boo koy jot day gaaw dina am sécurité te lañ ci fey du bari dana am suñu souveraineté suñu waaw maanaam dina participer ci ñu am suñu souveraineté ñu moom suñu bopp ci wàllu données. voilà ñu moom suñu bopp ci wàllu donné mais mais mais est-ce que loolu Malick euh, yéexu leen koo def politique boobu ndax euh, bëri ay suñuy données yoo xam ne rawatina ñun suñuy euh, fichier électoral ak yeneen données yu bëri yoo xam ne ñu dem loger ko ji ko fi nga xam ne tey moom mooy bitim réew ndax président Macky Sall dégg ne lépp danañ ko déloger indi ko fii ci Sénégal est-ce que data center boobu yéexu leen ko def. waaw xam nga nag dama war a préciser gis nga information sensible yu état yi yu ci bëri newul bitim réew nag yu ci bëri mu ngi fii parce que. bi data center bu bees la mais amoon nañ ay data center yu ndaw ADIE bi ñuy bi créé data center bii nii am na benn bi benn yoo xam ne tey jii suñu information état yu bari foofu la nekk donc ay état si yu bëri yu am solo yi dara génn ci Sénégal. waaw mais léegi lan moo taxoon suñu fichier électoral bi ñu naan ma nga Malaisie. waaw xam nga loolu temps yu njëkk ya la woon. xam nga boobu ay boobu ñu ngi doon wax ay 98 lañ doon wax ak ay ay yenn année yi lañ doon wax naan suñu fichier électoral ma xam nga boobu amuñu woon yenn capacité yi pour mën ko héberger fii mais loolu yëpp weesu nañ ko tey jii information yu sensible en tout cas yu Sénégal yi état du Sénégal yu ci bëri mu ngi fii xëy na peut-être léegi des na secteur privé bi ak euh, yenn organisme yi ak yenn organes yi indépendant yi ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne seen données yi mu ngi à l'extérieur ñooñu li li président bi wax mooy ñu jéem a rapatrier seen information yi fii pour mën a gën a favoriser aussi développement numérique bu Sénégal comme ça euh, euh, bu ñu soxlaa dara du du du jàll à l'extérieur parce que internet bi plus ngay jàllale à l'extérieur dem di jëli di indi plus muy gën a cher ci yow donc loolu am na waa am na am na volet économique mais aussi am na volet volet souveraineté maanaam ñu moom suñu bopp bu dara amee euh, ñu ne cable ba dagg na sous ba dagg na wala satellite bi daanu na au moins lii ñu am biir Sénégal mu mën a tourner biir Sénégal. d'accord jërëjëf euh, Malick Ndiaye mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu dalal malik Ndiaye euh, moom nag mu nekk expert en numérique waaye nag euh, dafay politique ñu dugg ci wàllum politique bi ndax dafa bokk ci cadre APR yi Malick fi ñuy dooree nag mooy. Euh, sànq danga doon wax benn euh, am na benn loi boo wax sànq nii loi boo xam ne jëm na ci wàllum internet ndax euh, réew yu bari ñoo ngi koy def pour gën a yëkkati daan yi ci wàllum terrorisme ak xeet yu demee noonu mais loi bii nga xamante ni tey moom ngeen modifié fan yi jàll indi ko assemblée nationale ñenn ci opposition bi dañoo jàpp ne daal dañ koo def pour xoqatal ñi nga xam ne ñooy askan pour bëgg a jaay doole pour yee pour bëgg nag xañ Sénégal yi seen àq. ak seen yelleef bëgg na nag tuumaal sénégalais yi tamit na leen ay terroriste ngeen yow euh, en tant que ku bokk ci cadre APR yi mouvance présidentielle lan moo ci sa waaw xam nga euh, problème mu loi boobu man yenn saa yi dama ciy xaw a jaaxle tuuti parce que gis nga définition terrorisme boobu ñuy wax définition terrorisme boobu depuis deux 2007 mu ngi ci biir loi bi dara changé wu ci 2007. bi ñuy modifier code code euh, euh, code pénal bi mu ngi ci woon temps Ablaye Wade la 2017 ñu modifié waat code pénal ak code de procédure pénale dugal ci infraction yi nga xam ne contre le terrorisme yi nga xam ne day utiliser numérique mu ngi ci woon ñu dellu si deux mille vingt 2021 même définition yu ñëw ñu ne dañu bëgg a xañ nit ñi seen seen ak ak seen yelleef. kon lu jaroon modification bi Malick. xam nga yenn modification yi ñu ci yokk modification yu touché wul loolu ñoom ñuy wax. modification yi touché wul modification ay yeneen ci ay yeneen détails la woon parce que à un moment donné Sénégal dafa bokk ci aussi ci ay ay ay ay organisation yoo xam ne ñun d'accord nañ ne ñëpp ñuy bokk ci organisation yi d'accord nañ ne lii dañ ko war a améliorer parce que terrorisme yi terroristes yi dañuy jaar ci biir euh, euh, blanchiment d'argent ak manipulation euh, yu doy waar yoo xam ne tey jii képp ku bokk ci xeex boobu rek war nga jël disposition yooyu nga transposer ko ci sa ci sa loi national mais loolu rek la amul lenn benn àq ak yelleef euh, doomu aadama bu ñu laal ci ci ci code bi. mais dara politique làqu ci. déedéet xam nga loo tax dara politique gis nga bu amoon lu ci làqu bu amoon lu ci làqu sax duñ ko defee nii parce que lii loo xam ne la. gars yi yóbbuwoon nañ ko commission technique nit ñu discuter ko ba pare bi ñëwee di di ko di ko voté ci la nit ñu commencé di coow alors ko coow loolu jaru ko. xam tax ñu indi coow li parce que tout simplement dañu jóge ci agenda 23 juin gars yi def contre manifestation parce que 23 juin dafay fàttali nit ñi 23 juin ba lay passé. 23 juin 2011 waaw. 2011 ñu ñëw ñu bëgg def contre manifestation 23 juin mu échec loi bi ñëw la vingt cinq ñu ne nag nañ profitoo ci dynamique boobu rek pour créer waat encore ay perturbations nit ñi yaakaar ne lu bees a am te dara lu bees amu fi. daara lu bees amu fi gis nga définition boobu maa la koy wax nii demal ci loi de deux code pénal deux mille pénal 2017 yi ñaari yooyu ñu ko modifié nga xool ci biir di nga gis ne définition yi benn la. mais xam nga Malick tamit euh, sénégalais yu bare bare jàpp naan nag wax dëgg yàlla am nañu sañ-sañ nag tiit loi bi ndax yéen euh, manifestation yi nga xamante ni moo fi amoon ci mois de mars affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr dañoo dégg tey euh, ay ministre yoo xamante ni tey ministre de l' intérieur. dem bay tudd tey ay ay ay ay terroristes di tudd ay forces occultes ku ci mel ni euh, ay Tall Sall aussi ak ministre de la justice ngeen ñuy ba ñenn ñi ne yéen da ngeen ñëw bëgg a tuumaal que ne Sénégalais yi dafa am ñoo xam ne ay terroristes lañ bëgg na ñu wàccoon ci mbedd mi lañ mais bu ñu ci tegee ay weer nag ngeen indil ñu nag lu jëm ci mbirum terrorisme ba ñenn ñi jàpp ne boo defee manifestation bu fa dara bu débordé sax lu fa man di am ñu ñu ne la yow acte terror euh, acte terrorisme nga def. loolu nag moo jaaxal gars yi Malick. non xam nga aussi il faut que euh, ñu xam ne état dafa am gis nga le ministre de l' intérieur ak ministre de la justice kenn gënu leen informé ak ministre des forces armées ministre de la justice bu bu ñu toogee ba ñu ne am na lu lu ñu rax ci biir manifestation am na ñu ci rax ñoo xam ne seen objectif terrorisme la da leen war a gëm sénégalais yi dañ leen war a gëm te gën a def attention loolu du waxu caaxaan nii de. parce que am na dynamique boo xam ne bu ko manifestation yi continuer woon. gars yi ñu ngi woon ci yoon bi di ñëw di renforcer si fii Sénégal. Ah, waaw parce que ñoom euh, lu ñuy xaar c'est le bon moment la ñuy xaar pour agir mais Gadio wax na ko dans une vidéo Gadio nee na daroon waxtaan ak euh, euh, le président au responsable mu ne ko mais comment ça se fait que le Sénégal soit encore épargné par le terrorisme mu ne ko no c'est pas qu'ils ne sont pas présents c'est pas parce que newuñ fi de. mais c'est parce que dañoo xaar le bon moment pour agir moo tax il faut ñu vigilant ci mbir mi waxuñu ne sénégalais yi ay terroristes lañ gis nga loolu waxu politique la. ah mais da yow da jàpp ne lu mel noonu gaa ji wax tamit liir naa ko ci benn ci euh, presse étrangère bi ka tey terroristes yi ñoom euh, si benn kuréel si ñoom dañoo ñoom daal nee nañu Afrique fépp am na ñu fa ay éléments yoo xamante ni tey euh, yu actif lañ bis la ñuy se la ñuy xaar rek. Euh, ñu doog a ñu doog a réagir comme yow da jàpp ne ñi doon def manifestation yi ay terroristes dafi rax. Euh, waxuma ne ay terroristes da ciy rax dañu ci rax dama ne li ñuy wax mooy les réseaux dormants ñu ngi taxaw réseau dormant mooy réseau yoo xam ne dañu pare ba pare ñu ngi tëdd nelaw. Sénégal Sénégal loolu am na fi. am na ci sous région bi yëpp maanaam Sénégal am na ay terroristes yu nekk ci biir réew mi. waaw loolu lu leer la loolu dafa leer nañ. ay réseau dormant ñu ngi fi dañoo dañoo jógagul parce que seen waxtu moo jotagul moo tax en cadre juridique bi ñuy def nii yëpp lépp lu ñuy def depuis bi ñu ko tàmbalee xeex bi pour le tourisme day préparer loolu moo tax ku ñu jàpp ne yow mi intention moo tax gis nga il faut ñu def différence entre manifestation publique nii maanaam yow nga jóg mer sa mer rek jóg di def sa ay marche di jóg def sa manifestation bokkul ak manifestation boo am intention terroriste loolu dafa am différence waxuñu ne tey jii parti politique parti politique organisé bu jóg di def manifestation kenn du ko assimiler ak terrorisme loolu amul loolu xam nga problème bu politique lan moo am c'est c'est vrai que gars yi bu ñu amulee agenda politique gis nga gis nga tournée yi président bi di def ak fonctionnement bi président bi yor fi mu nekk nii maanaam rouleau compresseur la c'est-à-dire day dérouler ay programme ba opposition bi dañuy jaxasoo ba nga xam ne dañuy utiliser prof ndoll bu ñu am rek pour créer benn benn benn benn benn benn reprendre agenda communication bi dañ koy def moo tax dañuy jël euh, peuple bi li leen jéem a instrumentaliser di leen ci ay termes ci ay mots mënoo jël loo xam ne yàgg na fi am parce que ministre de l'intérieur bi mu wax affaire terrorisme waxul ne sénégalais ay terroristes lañu. dafa junj ne am na ay terrorisme yu yuy rax ci affaire bi am na am na parce que ñoom ils ont tous les in les informations am nañ ko donc bu ko waxee rek mooy am na lu am soxla soxlawul mooy jund loolu bu amul woon parce que ñu ngi doon maîtriser si situation bi. Ah, yeneen yeneen affaire mooy. loi bii loi cinq bii. loi euh, modification bi ñuy def nii mais c'est parce que Sénégal dafa engagé wu à le faire amul amul amul lenn loo xam ne tey jii modifié nañ ko ci loo xam ne. gaa yi ngi koy coow te amu ci woon. waaw mais Malick euh, ñenn ñi que dañoo jàpp ne président Macky Sall dafa bëgg a euh, xupp Sénégalais yi ndax dafa bëgg def beneen mandat troisième mandat te mu jàpp ne tey Sénégalais yi bu fi waxee ne day def beneen mandat sénégal yi mën nañoo wàcc ci mbedd mi xam ne su leen waxee tey bu ngeen defee manifestation mën nañu ko assimiler ak euh, terrorisme bu ko defee sénégal yi tiit ñeen ñi loolu lañ jàpp. waaw mais xam nga assimilation terrorisme yombul ah boo xoolee loi bi di nga xam ne tey jii lu ñu war a mën a assimiler ak terrorisme yombul ci loi bi la loi est claire loi bi nag gunnuñ ko pour que euh, yow euh, euh, Abdou Khadre nga am sa interprétation man Malick Ndiaye ma am sama interprétation maanaam ku ci nekk warul mën a taxaw rek ne damay interpréter la loi dafa dafa leer nañ li muy assimilé au terrorisme xam nañ ko donc du parti politique bu jóg du keneen masam ma dem benn groupement waa waa sangam ñu mer jóg di def seen ay manifestation pour réclamer seen ay droits loolu bokkul ci terrorisme loolu musul bokk ci terrorisme donc man pour man jàpp naa ne manipulation la instrumentalisation la te gis nga nag euh, gis nga fi mu tombee maanaam gars yi amatuñu woon benn agenda parce que gis nga tournée économique bi président bi def Matam ak dans les dans la dans le dans le dans au centre et, et au nord mais ça a été une réussite extraordinaire boo xam ne agenda de réussite bi ak succès bi mënoon na permettre ñu dérouler tranquillement Sénégal pendant un mois te kenn du coow parce que gars yi mais attends mais Abdou Khadre xaw ma ndax demoon nga tournée ba économique bi wala déet mais boo demee ci tournée ngay doog a xam ne. tournée politique. non du tournée politique tournée économique. parce que tournée campagne déguisée. non. dem euh, natt sa bopp xool comme manifestation amoon nga dem natt sa bopp ci àll bi. déedéet du loolu. xam nga tey jii boo jëlee euh, premier conseil des ministres yu njëkk maatam ci la bokkoon président bi dem jël fay engagement. du dëgg mais bu ñu ñëwee ba à un moment donné. engagement yooyu yaayu def réalisation yi dafa bëri bëri bëri bëri ba nga xam ne à un moment donné il fallait que mu dem xool def tournée économique xool engagement yi mu jëloon vis-à-vis de la population ak vis-à-vis de de de de ña nekk foofu ñu xool lan lañ ci réaliser mais dama ne la il y a eu plus de quarante te une manifestations inauguration inauguration yi ak ak pose première pierre rek deux la. waaw mais Malick euh, tournée ñenn ñi tournée politique lañ ko jàppee campagne déguisée mais tey xumbaay mbumbaay rumbaay moomu noonu est-ce que mënutoon a ñàkk folklore boobu président Macky Sall doon def si jamono joo xam ne gox yam doon dem sénégale yu bari ya fa nekk dañoo sonn nga dem euh, Matam googa ñaan la ay Fuuta Tampi euh, xumbaay yeeg mbumbaay moomu est-ce que mun mënu ko woon a wàññi. waaw mais xam nga nag loolu dépendrul ci moom ah. président de la république décider day ñëw Matam waa Matam ñoom si seen bëgg président. si seen si seen euh, euh, gëm président décidé ne dañ koy teeru mais loolu daf leen mën a wax ne bu leen ma teeru xam nga loolu mënul nekk fépp fu mu jaar population yi ñoo génn responsable ya fa nekk ak ak ña fa nekk ñoom ñoo génn naturellement mais yow bu ngeen xoolee vidéo yi xool image yi xool photo yi di nga xam ne lii spontané la loo xam ne la kenn forcé wul kenn mu génn. léeg-léeg ñu gis pancarte ah. waaw mais xam nga pancarte yooyu aussi ku nekk da ngay wane sa boppa ah dañ nekk ci politique. ku nekk day wane boppam. kon kay campagne la. non xam nga euh, mbir mi mënul rax mënul bañ a rax politique bu la leen tournée économique la. Mm-hmm. maanaam président bi wàccul benn yoon yoon tournée économique mais nag moom nee na la buy noppalu lay politique moom pa président nee na man day liggéey en permanence bu may noppalu lay politique loolu mooy mënul bañ a politique parce que loolu aussi ci ci ci ci ci vocation am la bokk mais dama ne la. gis nga régime yu njëkk yi dañ doon ut lu ñu inauguré quarante trente et une inauguration ak ak pose de première pierre loolu moo doon régime yu njëkk yi moo doon seen bilan annuel président en un mois loolu la def ci trajectoire yi mu def nii te am na lu des parce que ñu bëree ngi mer parce que euh, jaaru fa inauguré wala jaaru fa euh, pose première pierre te yàlla xam na ne mu nga fa euh, mais Malick yéen président Macky Sall dañ ko fal Euh, ngir mu def ay infrastructure ngir mu liggéeyal askan bi mais dañoo gis ne buy inauguré benn mbir maanaam daf koy bàkkoo te loolu vraiment moo tax ñu daal di koy fal. waaw mais man day gisuma loolu wax dëgg yàlla gisuma président de la république inauguré dara di ko bàkkoo de président souvent buy inauguré dara la muy bàkkoo mooy maa diggee woon lii def naa ko wala lii ma diggee woon niñ ko defee noonu laa ko bëggee woon parce que dama lay wax benn affaire rek. gis nga euh, biñ 2012 xam nga ñun bi bi ñu egg si 2012 président de la république programme yi am fi fekkoon mooy ay programme de lutte contre la pauvreté yeeg programme de développement économique et social la xam nga boobu ñu ngi woon ci ay ay systèmes yoo xam ne euh, ay système gaa mu ngi doon dox nag mais nank la doon dox président bi mu ñëwee 2012 dafa ne damay changer paradigme maanaam li ñuy lutter contre la pauvreté lutter pour développer man damay viser émergence bu ma viser émergence ci sama trajectoire boobu dina régler waale pauvreté régler waale développement jëm ci émergence moo tax gis nga euh, inauguration bi ñu def nii semaine dernière mm-hmm. euh, euh, euh, parc industriel yi mais loolu bi ñuy def PSE dañ ne dafa ne man sama sama euh, stratégie industrielle bu Sénégal dañ koy changer visé naa d'ici quelques années ñu am parc industriel international Diamniadio dinañ am ay agropole centre agropole nord et cetera ñu def développer agropole dinañ am tamit ay ay ay ay zone industrielle yoo xam ne dans les régions dinañ ko développer am na yeneen ak yeneen programme yoo xam ne c'était pour relancer la stratégie de développement industriel gis nga tey jii boo gisee inauguration keroog loolu deuxième phase u benn programme boo xam ne la ci PSE la bokk mhm. te ba mu koy def gis nga bi mu demee ba foofu dañ dem ba foofu gis ne am na beneen zone boo xam ne Aprosi moo koy gérer boo xam ne gis nga booy ñëw jam ñaajo mhm. à un moment donné di nga gis sur la ci ci ci droite bi nii benn immeuble en verre boo xam ne da nga ciy gis ay bisis ak ay banque mhm. yooyu yëpp mais foofu trent cinq entreprise yoo xam ne ñoo fa installé wu te président boobu 2012 2013 la ko définir daal di ne zone bii nii foog ñu def fi lii pour que ñi nga xam ne dañoo am ay produits locaux yu ñu war a développer ñoo xam ne c'est pas des produits polluants ñu war nañ mën a installer wu fii tey jii boo fa demee y' plus de mille emplois sénégalais yu ñu créé foofu ëpp na ko. d' accord jërëjëf euh, Malick Ndiaye euh, yaa ngi def li nga xam ne rek moom mooy ab campagne léegi yow président Macky Sall ci tournée économique yooyu la ñuy wax ndax tey coronavirus bi dafa yokk te ñu bari jàpp nañ ne moom la ñun def nañ benn reportage boo xam ne askan bi dañu ne coronavirus bu yokkee ci Sénégal ak deuxième vague bi. Euh, naam yeneen way politique yi ci lañ bokk am na benn journal bu bind tey sax samedi ci tous coupable mais euh, tey jàpp naa ne daal euh, coronavirus bi bu yokkee Macky Sall am na ci part de président de la République ndax moom mooy ki ëpp information comme ni nga ko waxee moom lañ fi gis mu def fi ay tournée économique wër Sénégal gi yépp mbooloo mi topp ko ñu baree bari takkuñu ay masque Malick xam nga loolu nag aussi loolu boo ko waxee day nekk vraiment déclaration bu yomb nag parce que Euh, euh, d'accord nañ ne à un moment donné mobilisation am na mais xam nga sénégalais yi tamit même bu mobilisation de am mais waxuñ kenn mu tekki maskam benn ñaareel ba mënuma gëm ne tournée économique bi moom la moo war a nekk responsable euh, ci lii ew lii xew ni mënul nekk non mënul nekk boo mënee peut-être mën na ci am contribution comme toutes les manifestations comme lépp li nga xam ne xew na fi te euh, nit ñi jëluñ seen matukaay mën na loolu mën na am conséquence ci ci ci accélération Covid bi. waaw donc donc munoo jël responsabilité bi rek daal di ne euh, président moom moo dem defi tournée. donc non même bu ko jiitee. mais sénégalais ku nekk aussi da am sa responsabilité. mais moom moo ñu jiite mooy mooy waajuru kër gi mooy waajuru kër gi. mais moom ba muy dem dafa takk masque am. mais waajur boobu même boo takkee masque moom moo ñu njaboote moo ñu a euh, moo war a wax ne Malick mi dëkk Fatick war a def mobilisation Malick boo mënul takkal say militant ay masque bul bul manifester bu ko def bu la ko waxoon yow di nga jël sa matukaay. man dem naa Matam nekk ci euh, euh, ci ci protocole bi di nuyu président wàcce sama masque dama bay wax ak moom mu ne ma nii defaan ma signe bi ne ma sa masque. moom li mu war a def mu ngi koy def. non waxuñu non ma waxuñu président li mu war a def mu koy def. président dafa war a def li mu war a def ba pare wax askan wi ñu def li ñu war a def ba pare force ñu ñu def li ñu war a def. mais moom li mu war a li nit ñi war a def wax na leen ko li nit ñi war a def wax na leen ko moom mosul jóg ci appliquer gest barrière euh, euh, euh, vaccin. mais mais munoo tourné tourné bu toll noonu ba pare nit ñi mën a respecté mesure barrière nag ma. waaw mais nit ñi bu ñu ko waaw ku ci nekk yaay jël sa responsabilité euh, gérer gérer sa bopp. nit ñi dañ li ñu man mooy wax la wax la conseiller la ne la takk leen seen masque parce que ci biir ci biir mobilisation yooyu mais nit ñi dañ doon distribuer ay masques nit ñi ñi leen fa indi ñu ci bëri. bu ñu duggee ci oto yi wala dugg ci kii dañ leen di jox ay masque pour ñu takk ko xëy na gars yi nag ci seen ay ci seen xër ak ci seen kii moo tax xëy na peut-être bëgg président bi xàmmee leen ak yéen ak yéen moo tax nit ñi dindi masque yi mais ku ku mobiliser yóbbaale nga ay masque mais médecins yi ñoom nee nañ daal mobilisation nee nañ coronavirus bi yokk ci weer wi ñu génn la te weer wii ñu génn président Macky Sall lañ fi gis mu ànd ak ak mbobooram war réew mi yëpp wax dëgg yàlla Malick ñun loolu lañ gis xaw ma ne yow gis nga loolu wala gisoo loolu ah man de gis naa président bi def tournée économique. gis nga gis naa tamit nit ñi di distribuer ay masques. Ah. gis naa tamit ñu sol ay masques. gis naa tamit ñu solul ay masque d'accord waaye loolu responsabilité individuelle la. <laughs> d'accord euh, Malick euh, li nga xamante ni nag mooy élection locale yi. élection locale yi euh, yéen. Euh, gis nañ gox bu nekk ma ngi bëri ñu ne nañuy nekk candidat dañuy nekk candidat te élection locale yi enjeu yi dafa dafa bëri euh, gis nañ modification code électoral bi euh, ci modification code électoral boobu sax yow lan moo ci sa xalaat xam ne parrainage bi du bokk ci élection yi beneen bi suffrage direct moom mooy am ci maire yi ak ci conseil départementaux yi yow lan moo ci sa xalaat waaw man vraiment Abdou Khad balaa may wax li ma xalaat ci ci modification yi nouveau code bi dama bëggoon d'abord nga permettre ma ma féliciter féliciter vraiment les membres de la commission politique du dialogue national. gis nga euh, euh, ñoo xam ne la pendant deux ans ñaari at depuis bi président installé commission bi ba léegi ñaari at a ngi nii chaque semaine ñu réunion ñaari yoon ba indi consensus bi donc ñooñu. pendant que am na yeneen. consensus ci quelques points. waaw mais consensus consensus la rek gis nga euh, pendant que am na opposant yoo xam ne ñu ngi doon euh, créer insurrection di jaxasee di lëmbay dëkk bi di jaxasee am na ci ay opposant yoo xam ne ak membre de la société civile ak membre de notre coalition yoo xam ne mais chaque deux chaque semaine ñu ngi doon réunion ñaari yoon pour loo xam ne moo jëmal askan bi kanam. pour loo xam ne moo gérer suñu démocratie pour loo xam ne mooy déterminer l'avenir politique du Sénégal ñooñu il faut ñu remercier leen je que xam naa ne président bi conseil des ministres du cinq bi félicité na leen mais dama jàpp ne sénégalais bu ne sénégalais bu ne surtout homme politique yi war nañ delloo njukkal ñooñu nga xam ne ñoo sacrifié wu même période Covid dañ doon réunion donc loolu dama buggoon rek nga may ma ko. Mm-hmm. mais li ma ci bëgg a yokk mooy gis nga njiit day am njiit day projeté gis nga président bi bi mu gañee kan moom vision foofu. mais président Macky Sall laay wax. mais euh, déggoo Déthié Fall ne vision jam ñaajo la yem. ak Idriss na vision jam ñaajo la yem. Euh, xam nga le problème qu'il mooy euh, ñoom la seen limite yem jam ñaajo ñu doon ñuy wax loolu la seen limite yem jam ñaajo parce que président même bu déterminer vision mu dépassé jam ñaajo nekk ci biir Sénégal boo amul capacité gis ko foofu da ngay yow yaay am problème. donc ah. yow yaay gis moom. yow léegi ne moom moom la am vision. xam nga président ba mu gañee élection yi cinquante huit pour cent deux mille dix neuf amul lenn loo xam ne obligé woon na ko mu créer les conditions pour que dialogue national am mais dafa gañe rek daal ne yi d' accord mën naa leen gañe naa donc xam naa ne situation mais léegi ñëw la ñu toog ñu waxtaan. bu boobu boobu ñu bëri nangul nañ ko ko ci la dialogue national bi démarré dialogue na ci biir national boobu nag commission politique bi. bi nga xam ne à partir du mois de mai 2019 la commencé liggéey commission politique boobu mais mooy ñi ma doon remercier léegi ñooñu seen liggéey mooy moo ñëw ba fii tey au bout de deux ans donc loolu dañ ci d'abord delloo njugal président yi parce que vision la loolu parce que xamoon na ne bu ñuy balaa ñuy atteindre yeneen élection balaa ñuy atteindre yeneen élection il faut quand même ñu apaiser environnement bi créer les conditions de de réforme de du euh, du code électoral surtout dans un consensus donc loolu moo tax lii am maintenant ñu ñëw ci ci point yi gis nga lu tax ma doon delloo ñu ko ñële parce que liggéey bi ñu def pendant deux ans li mu indi mooy au moins 66 points la ñu modifié ci code électoral bi 66 points de réforme moo ci am mënuñu dellu si ci lépp mais boo jëlee 66 points yi yi am ci réforme bi. te yooyu yëpp déggoo am na ci. 66 point yi mooy li ñu déggoo. li ñu déggoowul ay 4 cinq trois 4 cinq 3 4 points la rek mais 66 points de réforme la ñu gis nga euh, sëñ Mbacke gis nga réforme yi dafa am solo am importance ci biir code électoral yi ba nga xam ne xam nga en général bu ñuy modifier code électoral nu ñuy def dañuy jël code électoral bi ñu ne ñetti points yi ñeenti points yi la ñuy modifier. Mhm. d'accord léegi dañuy jël même bi code électoral bi bu ñu naan code électoral loi nangam nangam 2000 et cetera. modifié dañ koy modifié ñu jël article yu bees yi ñu dugal ko ci biir daal ne article bi yokk nañ ko ci article bi yokk mais bi yoon dafa bëri am solo ba nga xam ne dafa modifié philosophie code électoral bi moo tax dañu créer code bu bees jël article yi ñu bàyyi yi nga xam ne kenn laalu ko ñu dugal ko ci jël article yi nga xam ne dañ ko modifié 66 yi ñu dugal ko ci biir mu nekk code bu bees du donc du nekkatul code bu ñu modifie pratiquement code bu bees parce que architecture bi dafa changé philosophie bi changé. d'accord philosophie bi lu tax mu changé. Mhm. wax nga ko léegi bu ñu demee ba les maires et les présidents de conseils départementaux ñu leen di élire au suffrage universel direct mais loolu avancé bu extraordinaire la au Sénégal parce que loolu ça a été une demande nationale une demande populaire kooku ñëpp a ko rafetlu parce que gis nga. Euh, yenn saa yi dañ daan def élection maire bi ay vingt deuxième vingt septième position la daan nekk mais yor bay euh, bagage am yor ay kii am taxaw di xaar ñu fal liste bi ki nekk tête de liste xaw a nooy tuuti ku jóge vingt deuxième position ñëw jaxase carte gi jël maire bi alors que amul légitimité bi yoon nag ku ñu def tête de liste population bi dinañ xam ne yow mii la ñu war a voter pour nga nekk maire. loolu leer na. Euh, léegi euh, Malick euh, mouvance présidentielle bi tey fu nekk gars yi ñoo ngi wax ne candidat lañ mbaa du indi te président nee na benn liste la bëgg lan moo ci sa xalaat. léegi balaa nga may balaa may tontu ci loolu da may may rek ma joxe benn point boo xam ne. gis nga Abdou Khad li ma la wax sànq ci code électoral bi daf ci am ay points yoo am solo yoo xam ne bu ñuy communiquer duñ ci jaar. Mhm. gis nga code électoral bi. am na ay aménagement yu mu jël pour les personnes handicapées xam nga loolu ba léegi déggaloo ko fen gis nga euh, les personnes qui souffrent de handicap là tey jii bu ñu waree dem vote ji bu ñu duggee ci centre de vote yi yow da nga daan gis ni ñu daan sonnee. dem di wër seen bureau de vote ak nangam nangam di rang tey jii personne bu am handicap temporaire ou permanent boo duggee ci sa lieu de vote bureau boo bëgg mën nga dem vote ji. deuxièmement même boo amulee boo amee difficulté non seulement bureau boo tànn mën nga dem vote ji mais yaay prioritaire ñaareel bi mooy même boo amee problème mu loxo problème mu kii pour bulletin mën nañ la dimbale officier ya fa nekk ñu ñi fa nekk mën nañ la dimbale su boo ñoo ñooñu dimbale la sax yow sa bopp mën nga tànn la personne ki nga bëgg mu ñëw dugg dimbale la donc réforme bi am na lu bëri loo xam ne mu ngi ci biir et puis dernière dernière dernière chose gis nga bi ñu daan def euh, euh, élection locale mairie dañ daan wax cinquante pour cent majoritaire cinquante pour cent liste proportionnelle mais léegi loolu changé na léegi liste proportionnelle mooy jël 65 pour cent liste majoritaire bi jël 45 pour cent donc yooyu la modification yoo xam ne ñëpp déggoo et puis candidature indépendante yi ñi ah, candidature indépendant yi ñi nga xam ne bokkatuñ ci parti depuis plus de un an ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mosuñ bokk ci parti politique tey jii bu leen neexee ñu ñëw indi seen list l' essentiel mooy nañu am ay électeurs yu leen supporté ci biir list bi rek bu boobaa ñu dem ensuite après beneen kii bu am importance mooy caution bi léegi au moins dinañ am caution pour les pour les local caution boobu nag euh, euh, ministre de l' intérieur dina waxtaan ak parti politique yi ñu toog xool caution bi ñaata la ñu dugal ko bu ñu ci d'accord ñu dugal ko. d'accord léegi euh, élection locale yi euh, ñu jeexale ko ak moom ci euh, ci une rek ci coalition mouvance présidentielle enjeu yi lan nga lan moo ci sa xalaat. man dama jàpp ne gis nga élection yi d'abord benn benn mbir gis nga tournée économique bi am naa ci benn jàngat rek benn bu simple rek réalisation yi président bi indi ak fa mu traversé fekk na ñaari façon maire d'abord benn mooy maire bi nga xam ne daraan liggéey réalisation état bi ñoo fekk si ko mu nekk complement ca la mu daan liggéey maire boobu mun na bañ a am problème am na maire yoo xam ne li état bi indi maanaam président bi li mu indi fekku fa dara ñooñu affaire bi dafa ñëw muur leen ñuy daw ci ginnaaw di xool naka lañ koy gérer donc Sénégal tey jii globalement am na ñoo xam ne liggéey nañ am na ñoo xam ne liggéeyuñ d' accord seen maire yéen ndax liggéey na Matar Ba. waaw xam nga euh, suñu maire moom euh, mënuma bañ a ne liggéey en tout cas boo dajalee la fa état bi def ak la fa maire bi def liggéey am na fa résultat am résultat am na fa. boo boolee maire liggéey na. Euh, maire bi liggéey na bu dee bu dee maire rek. Mhm. la mu liggéey doyul. Mhm. bu dee maire mairie ba rek. Mhm. la mu liggéey en terme d' infrastructure et en terme de de de projet doyul. jërëjëf euh, Malick waxtu jeex na émission bi neexoon na ñoo ngi lay sant di a gërëm. voilà merci beaucoup sëñ Mag merci jërëjëf. jërëjëf euh, Malick Ndiaye mbokk yi mu nekk expert euh, en numérique euh, ñu koy jaajëfal mu mbokk nag ci membre coalition membre des cadres convergence des cadres républicains mu bokk ci cadre APR yi nekk responsable politique fi nga xam ne nag moom mooy Fatick di liggéeyee fi nga xam ne moom mooy ARTP ñu koy sant di ko gërëm mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h 16h Mamadou Diaw moo nekkoon ci machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak